إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به تمتعوا فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع loolu loolu du wax ji wax ji mooy nit ki moom bu génnee àddina bu yàlla moom mooy jël bi ko yàlla jëlee ñu ah, gunge ko ba denc ko fii nga xam ne suñu xel dal na fi parce que man man man laayeen laa donc su fekkee ni moom dafa ci dundam dafa ñaanoon pour bés bu ko yàlla jëlee ñu denc ko fi sama xel da ci dal ñaanal ko rek nit moom bu génnee àddina doo doo doo xool mënoo def dara ba indiwaat ko du dul ñaan ñaan la soxla nañ ko ko defal mais leneen amul importance. waaw waa famille am ak ñëpp famille am ñëpp laay wax que ni vraiment massa parce que famille am aussi du waa kër jabaram waa këram rek ñun tam famille am la ñu woon donc ñëpp a perte Sénégal yëpp moo perte parce que ñëpp seede bi yëpp benn la ci Ndiaye parce que ci biir dundam vraiment lépp lu mu wane lu positif la ma sa doon merci. nga dund ak moom lan fàttali ci euh, maa ngi fàttaliwu ma woo ko sama bureau am benn projet ak moom ma woo ko ne ko kaay sama bureau mu ñëw toog ma toog ma ne ko dama bëgg a def lii ak lii ak yow Njaay jékki-jékki sëgg ma ne ko looy sëgg ndeket mi ngi jooy moom boo ko waxee dara balaa mu lay tontu day jooy ba pare ndax émotion rek la feesoon vraiment nit ku baax la woon vraiment Njaay moom loolu lañ ko mën a mën a seedeel di ñaan te te du ñun rek ñoo perte Euh, lenn peut lu may lu may regretter rek mooy euh, je pense que talaam fi mu tolloon sax peut-être que sax mënoon na weesu fu mu nekkoon mais loolu la yàlla dogal mais vraiment nekkoon na nit boo xam ne li ñu gis ci mot ci talent ci moom sax pour man li mu amoon weesu na ko te il vraiment des projet mais depuis feebar bi tëddal ko vraiment mu nekk ci coono yu metti mais ànd ko ak gëm yàlla donc vraiment ñaan rek la ñu mën a def jërëjëf merci Oustaz euh, nuyu nañ la bu baax di la ziar. fay nañ la soxna si. ñu ngi leen di masawu di bokk ak yéen métti bi. waaw di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñëpp si yàlla la ñu jóge te si yàlla la ñuy dellu Ablaye dem na yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko xaar ko aljana am na ku ne ma léegi saye ma ne ko waa saye pour moom waaye ñun c'est pas encore saye pour ñun ñun ñoo si des te dañuy dem kon nañu gën a rafetal mbokk gi xool suñu diggante ak suñu borom jàppante bëggante soppante te yàlla tax te xam ne li ko yóbbu du ñu fi bàyyi suñu bés a ngi ñëw dañuy ñaan rek yàlla na yeex moom mi jiitu ak ña mu fa fekki yàlla jéggal leen xaar leen aljana. mu nekkee ci télé bi ban relation la amoon ak yow. suma xarit la suma koreg la suma goro la. baax yiw am diine bëgg ñëpp bëgg lu baax bëgg lu sell yéen ñëpp jàmm wax fa dëgg yàlla. kenn mosul àtte njaay kenn su ko dégg si lu ñaaw wala sofaan saa yu la séenee defe na ne moo war a jël mbégte ak contentement dugal ko sa biir xol bi kon li mu doon béggale nit ñi yàlla na ko yàlla béggale noonu xaare ko àjjana si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ba mu tëddee feebar ndax jot ngeen gisante wala. yàggul dara si koor gi rek gise nañ waxtaan si yu bëri ak feebaram bi bu doon alal moo ko fiy téye kon du dem ndax président ak Futurs Médias def nañ si seen kem kàttan waaye yàlla ni la ko bëggee. ok ngay dénk soxnaam ak ñi nga xam ne rek ñoom la nekk loon ci liggéey bi. ñu gën a góorgóorlu gën a bëggante te xam ne àdduna yàggul te lépp nettali lay mujje te ku nekk war ngay fexe sa bés bu mel nii bu ñëwee ñu waxal la lu rafet liñ ko waxal kon nit ñi nañu jàppalante bëggante te yàlla tax waxalante lu baax nëbbalante ay ayib nda bés a ngi ñëw ku ne danga nga bëgg ñu waxal la lu baax nëbbal la sa yu ñaaw. ñi nga xam ne yéen fi teewal diine gi senegal fan yi bari métit loolu agression bi rayante yeeg lépp. xale yi nañu góorgóorlu tuur seet ñax dundee lu lew te jaamu yàlla loolu rek bu ñu ko defee mucc fii mucc fële jërëjëf. boo nekkee ndaw wala nga nekk leneen lépp looy def nga jiital ci sa borom boo demee ci sa borom yàlla mën la defal yërmande moom nag ñu ko seedeel lu baax la seedeel ñëpp seddal nañ ko ni nitu jàmm la woon nit ko la koo xamante ni kii li mu doon def mu ngi ko doon def mais doon na ko doon def ak euh, sellal. Euh, ñëpp wax nañu ne da ko doon yàllaal donc kon yàlla na ko yàlla teeru ak yërmande vraiment ñu ngi koy masawu di leen ko jaale surtout di ko jaal monde artistique bi tamit macha allah ñu doon yëngu ci culture yëpp ñu ngi koy jaale. yal na yàlla yaram ko macha allah. pour notre famille GFMienne euh, parce que c'est un des nôtres aujourd'hui qui nous quitte et on a cette solidarité euh, am nañu solidarité bu nga xamante ni tey jii moo waral ñun ñëpp je pense que euh, li ko dalee direction bi ba ci suuf ñëpp ñëw nañ euh, taxawu ko gunge ko jusqu'à sa dernière demeure et vraiment muy loo xamante ni du ñu def lu dul ñaanal ko yàlla. Euh, branché àjjana ci bàmmeelam comme on dit en ces en de pareilles circonstances vraiment ñàkk nañ ku am je l'ai dit tout à l'heure il avait vraiment une palette assez large il avait plusieurs cordes à son arc euh, il était un, un, un quelqu'un qui pouvait euh, très bien euh, s'exercer dans dans l'imitation parce que c'était un très grand imitateur C'était aussi un chanteur par moment. Vraiment, aujourd'hui, j'en parle encore avec le sourire parce qu'il nous a encore, il nous a vraiment marqué. C'est quelqu'un qui va rester dans, dans, dans les mémoires, je pense, et pour très longtemps. Futur média. ndax Père Boukhar nee na ba mu tuddee ba léegi vraiment euh, gars yi toppatoo nañ ko toppatoo bu baax bu rafet te ñun bu nit génnee àdduna ginnaaw bu ñu ci génnee ay wax lépp dañ koy delloo suñu borom donc ñoo ngi gërëm président Youssou Ndour di ko ko di ko jaal Grand Ndour Bouba ak Ndiaga waa Futurs Médias yëpp di ko jaalee toute la presse ndax Ndiaye Ndiayu ñëpp la woon waaw Ndiaye ñëpp la woon waaw Yoff nag ñoo ngi leen di gërëm parce que taxaw bi ñu taxaw ki nga xam ni mooy sunu sunu frère bi taxaw bu rafet la li may juddoo Ndakaaru di fi màggee di fi yaroo tey laa fi mës dugg waaye gis naa fi lu yéeme te it ñu baax la ndax ñoom ñëpp a génn ci kilifa yi diine yi taxaw ki nga xam ne mooy Ndiaye yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay ci barke Baye Laay mi nga xam ne eh, moo tëdd ci béréb bii waaw ah, donc ñun tam ñoo leen koy jaala ah, parce que du ñun du du ñun rek ñoo ñàkk Ndiaye Ndiaye Sénégal le monde entier ñoo ko ñàkk donc yàlla na fi géej yàlla na fi géej te yàlla na xippee àjjana ci barke Cheikh Ahmad Bamba sama yaakaar àdduna ak alaaxira jërë ngeen jëf. ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana di ko malaaka meer teeru waaye denc nañ ko foo xamee am nañ ci yaakaar yàlla na ko yàlla xaare àjjana loolu laa amoon ci moom ay kàddu yoo xam ne dinaa ko wax mu doon nit koo xam ne man moom sama xarit la woon yàlla dogal mu doon nit koo xam ne bëggoon trop ci audio yi may def nii dañ ci doon waxtaan mu ne man dama laa bëgg loolu nag yàlla moo koy def te cofeel bi mu am ci man bu ko laa amoon ci moom tey jii hmm, tey hmm. waaw yëgoon naaw feebaram su ma la waxee yëguma feebaram tax euh, dama koy fekk waaye xam nga feebar moo doon loo xam ne bi la war a yóbbu bu ko réew mi yëgoon terewul boo waree dem allah kulli alin da ngay dem ñun liñ ko manal rek mooy gunge ko ñaanal ko tey bu ñu yoroon wér fa mu tëdd dafay jug waaye nag doomu aadama euh, jaam ak pexe mais yàlla ma dogalam lii la yàlla dogal dañuy def lu nangu ndax nit bu fekkee suñu borom dogal na ay dogalam lenn rek nga mën a def lu nangu dogal te nangu na dogal di ñaan yàlla xaar ko aj. te li muy def ci man mooy. Euh, am naa ci loo xamante ne wax dëgg yàlla su sañoon mu toog na waaye nag yàlla moom soxlaa jàmm ñàkk donc ni muy def ñëpp rek noonu la may def franchement wax dëgg yàlla parce que ñun ay xol lañ yor dañuy yëg am na ay sentiment nit la koo xamee nit ku baax la woon kon soxla woon nañ ko mais nag yàlla moom moo doon euh, buur boo xamee bu soxlaa rek jàmm ñàkk day nuyu di la waaw maa ngi lay fay soxna si. di leen di jaale di leen masaw bu. waaw ñu ñu ngi lay jaale bu baax di jaale sa site internet bi yëpp di leen charré bu baax a baax. a Ndiaye génn àdduna ngeen denc ko ba pare lan nga yëg bi nga duggee ci biir. waaw sant yàlla sant yàlla bu baax alhamdulilahi rabil alamin julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que nit bu juddoo dañoo war a sant nit bu dëddoo àdduna dañoo war a sant. e tey nag sant gi day wute ndax la Ndiaye su ñun la bokk suñu mbokk la suñu mbokk deret la parce que artiste comédien la kon suñu borom dogalee teg ko natt muy feebar dañu koy nangu parce que feebar jaam la ñun ay jaam la ñu kon bu ko feebar duggee ba suñu borom jël ko moom ko yóbbu ko dañuy sant e di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah. yéen relation ngeen waaw comme ni nga gis nii rek ñun ñëpp benn lañu comédiens yi ñu baax ñi ay xarit lañu comédiens yi ñu baax ñi ñi nga xam dañoo bëgg lu baax xam fi ñu jëm ay xarit lañu ñi fi gis ñëpp ñun benn lañu chaque weer daa am fu ñuy daje di waxtaan di kaf di ree te Ndiaye si ñooñu la bokkoon kon manqué nañu tey mais sant yàlla bu baax a baax a baax. diir ba mu est-ce que jot ngeen wax. non gis ko sax problème la nag franchement pour dire la vérité mais lu jiitu lu jiitu avant fay bi di ko gën a sonal daan nañu wax daan nañu gisee mais bi ko fay bi tëralee non amuñoon accès ci moom parce que boobu sonnoon na non sonnoon na boobu boobu sonnoon na opéré nañu ko affaire yi métti na frère daal la mën a jokkool téléphone te bu ñu ñëwee soxnaam la fekk mu toog soxnaam lañ ëpp lu ñu doon waxtaanal voilà loolu nag ak cant et puis di remercier soxnaam bu baax a baax. di ko massaw di ko jaale di jaale aussi frère am bi mu nekkaloon ci hôpital bi. merci beaucoup. de rien soxna si merci